saraax la nuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa jàngat bu yaatu ba ñu jàngat ca tafaatin ñoom sunu lamb tey tafaatin la ñu génn ci moom juróomi mbir yoo xam ne nii bu ci nekk war naa mën a ub lamb tafaatin bu nekkee roi des ci lamb ji bu mu bett kenn qualité ya nekk ca moom ba sunu lamb ñëkkalim bokk na ca mat ga mu mat mbër boo ko séenee muy ñëw doo laajte ana mbër mi boo ko séenee maasàllaa ca bind baak ca dayo ba bu ñuy lim ñi mat mbër ci lamb ji tafaatin ba kenn du ko ca jiitu rax ca doole ñu ne beneen atu ba tafaatin am bokk loxo yaa raw fit mboolem ñi nekk ci lamb ji xam nanu ko loxo yu diis te yu neex ci tafaatin nga koy gis beneen ba sunu lamb lim di ñetteel ba mooy technique ba tafaatin ku ko wax wax technicité amul kenn ci lamb ji ku koy gis naan daa tële bëre moom tafaatin mën a bëre gi ci moom foo ko natt weesu na ko bu dee wàllu mystique njort nañ ne tafaatin ñi ko ko ëpp ci lamb ji dañ leen di wàññ juróomeel ba mooy expérience bi mu am ci wàllu lamb ca jamonoy mbapat ci digganteem ak Balla Gaye 2 léegi nii dañuy xam ne mbër mu am expérience Bombardier guy gi Zos Yékini Junior ñaari yoon cinq défaites yi am ci lamb Issa Pouye moo ko daan Lac de Guiers numéro 2 Basoka Balla Gaye 2 ak Ama li ni mel moo tax ñu ne Tapha kenn dootu ko wax ci wàllu expérience journal ba xam le juróomi atu yi mbër mu ko boole boo moytuwul da nga nekk roi des arènes nu mbër yi am doole macha allah am fit mën a xeex teg ci am technicité am expérience ba noppi am mystique ku ko boole da ne la wax la karatéka ñu gën koo xam ci Brisli moom Brisli bu faas na mu door fa mu tàmbalee ñépp dañoo jàppoon mooy doon champion faas bi ñaari defetam yi mu am ci diggante Baye Mandione ak Amed Dem moo ko suul ci saako ya le 19 avril la ko Baye Mandione daan le 21 juillet 2018 ci Iba Mar Diop Dem bu Caaroy Cap Vert daal di koy daan boobee ba léegi moom la karatéka de faas mu ngi ci guddi ko moom ay mbiram bu jaaroon yoon ba léegi dañuy wax digganteem ak ñoom Boy Niang ñoom Ama Baldé waaye ba léegi nii Bruce kenn xamagul ci lu mu nekk gannaaw riirum combat bee mel ni tuleeg maale ci dëkk bi moo tax sunu làmb xëy génnal leen benn revanche diggante Pakala ak Elton revanche boobee jot na sëkk ñaari mbër yi 2013 la woon Pakala am ci kaw Elton ndam juróom-ñaari at ci ren ñoom ñaar kenn mënaguta am adversaire dañoo war leeral diggante journal ba ne ñaar ñi seen revanche mat na sëkk beneen promoteur dugg si na ci làng gi muy président wu écurie Kaay Baax moom góor gi sis production yegg si na ba taxawal kombaam kombaam bu njëkk bi mu taxawal mooy diggante Orton bu jëf soog nekk ak Albury bu Kaay Baax bu dee Gambien moom tàllal na loxo ne réel ne ko kaay ñu bëre gannaaw moom ne ko réel dañ ko doon wëral adversaire te kenn nanguwul ko woon jël Gambien le scorpion de Bulfaale moo Ronaldinho daan Tonnerre daan Jet Li kan moo ñemee taxaw ci kanamam loolee moo waral journal ba ne mbëri yi ñuy waaji lim amul kenn ku ko ci mën a bañ du Cobra 2 bu Pikine mbooloo du Malaw Seras bu Pikine Falaye Baldé du Bébé Saloum bu Jimbori du Nekorel même ba ci Libidor bu Kayar kenn mën a tuta bañ jam ceeri 10 victoire la fi am 3 défaite bi le champion léegi ci lamb ji ko bañ danga koo ragal jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën